xam nga dañu euh, mënul bëri xam nga lu ñu man xeex. xeexu mbedd nag xanaa gisoo xale yi koo ci mu ne dama lay yóbbu ardo dama lay yóbbu ardo amul amul solo mais boo xoolee diggante euh, tey Modou Lo ak euh, Eumeu Sène la ñu bëree keroog seen premier combat nga xam ne keroog bëre dam yi la lu Eumeu seen lal rek. Modou Lo tegg ko loolu boo gisee euh, euh, mbër yi ñu bari naan Lac de Guiers mënta bëre ku naan Lac de mënuta mënta bëre mënoo bëre wala xamoo bëre Lac de Guiers a daq bëri ci làmb ji xam nga lu tax loo def mu dindi ko li muy def doo ko dindi. kenn mënu ko cee daan. kenn mënu ko cee daan kenn kenn kenn. mas nga gis Lac de Guiers mu ñu dëj wala Lac de Guiers mu tëddee wet wala Lac de mu jaaxaan. mës a am kon mbër yi ku ci dàq bëri la de guerre amoo ci xam nga lan la mbër mu ko man na ko daan ku mën a daan ko moom rek ngay wax ci biir mbër yëpp moom rek nga mënta limal ñetti defet kenn mënu a wax na la de daan na ñetti defet benn kese la jot a daanu benn la daanu te benn ba trois appuis la du quatre appuis sax daanuwul keroog de billahi daanuwul mais euh, làmb day toll foo xam ne euh, dafa yéeme daal moo tax daal euh, làmb daal nekk na loo xam ne xale yi il faut ñu jàngiwaat bëre Lac de tam man daf maa bàyyoo man ma dooma ko sama doom la loolu ragal lu ma ko wax ñëpp àddina bépp di ma dégg parce que dañ ma ko dénk maam ma ba moo ma fekk ca bitigu Aziz Diop ca talim mag booy bi jóge entraînement mu ne ma père ma ne ko ah, mu ne ma xale bii laay formé Mama Ba dama ko bëgg a def roi des arènes man nag bés tey ma ne ko ah, mu ne ma dénk naa la ko ma ne ko barka Axmadul Xadim naa naa ko jàppale kon bu Mama demee barsax la dëgër toll fii mu toll la ma waxoon ak Mama dara du ci dara du ci tax dama koy jàppale ci kàttanu yàlla